Yàlla rahmatullahi wa barakaatu. yéen bokki caameen ñu ngi leen di nuyu nuyoo bu matale bu lislaam boobu nuyoo bi ñu jël ko di ko tog teg ci loxol imaam ak boroom dëkk ñu jotal ko mbooleem njaboot gi ci turu euh, Cheikh Alaaji Maam Corno Mbakke moom Cheikh Mouhamadou Mountakha moom Cheikh Mouhamadul Basir moom Cheikh Ahmadou Bamba tey ñëw na fi seet si leen nekk seen ak gan nekk suñu gan ndax daaw jaaroon na fi faslante ak kóllëre yéen siyaare wante ren bi mu ñëwee mu ne dinaa fa demaat jaaraat fa faslante ak kóllëre ak ñoom tànk ya ma doon dox di ko dox Touba Fall moom rek lay dox kii mooy taawu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi xalifa général murid yëpp di sol casque bu rëy itam nag nekk boroom xam-xam bu mag boo xam ne ñëpp ràññee nañ ko ci senegal nekk itam defarkat boo xam ne nii nga xam ne waajuruma Cheikh Mouhamadou Mountakha rane woon na ko ci yoonu murid taxawaay boobu rek la taxaw moom itam waaye mu nekk koo xam ne nii itam nag di borom. di li li ñuy wax intellectuel di intelligent nekk nit koo xam ne jamono bu ne foo ko seen muy yëngatu rek ci xam-xam la yëngatu ku gëm xam-xam la waaye nag liggéey na ci lu rëy itam nag di nekk koo xam ne nii itam ku bëgg liggéey bi mu nekk la muy toolu maamam bii di toolu sëriñ tubaa mu ngi ciy liggéey liggéey bu am solo ba mbooleem buntu këri sëriñ Touba yi ñëpp ràññee nañ ko ñëpp xam nañ ko ñépp teg nañ ko ca kaw te loolu nag yitteem la ba muy ñëw jaar na kër ba mosu faa ñëw ren la fa mos a ñëw caameen sañ ci ñëwoon na fi daaw ren it ne de dana fi ñëwaat te nee na fas na yéene saa bu ñëwee ci réew mi dana fi yegsi loolu nag suñ diggante ak yéen lañ koy seedeel sëñ bii ndax dëkk bii mooy tubaa tubaa mooy dëkk bii ndax ñii ba ñi ñoo dalal tubaa bi sëriñ Omar Fall di sanc fii mag ñi nekkoon fii tey ñoo daan root ay ndox di ko yóbbul di xebal seeni doom maam yi ñii ak seeni baay di xebal seeni doom ñii dem di ko jàjjale teen bi kon nga xam ne mag ñi dëkk nu rafet lañ dëkkoon sëñ bi te loolee dëkk nañ fu ne nii juróom-ñaar fukki at yu kenn mëstu digg diggante Touba ak Thiamène te yàlla bu mu xam lu lu rafet rek ngay dégg te imaam bii jiite nañu jumaa fii ñaar fukki ñu doog a ci jumaa xaj na ñun ñoo leen di def lu leen naqari ñu duñu ko mënal di ñu seet waaye ñoom de mosuñoo gis ñu def ñu lu ñu naqadi ay jullit ñu baax ay gor ay jaamu yàlla ñu nangoo liggéey ñu xam ngor nit ñu tedd ñoo fi dëkk Mbàkke dëkk bii ak dëkk bi nga jógee benn la ci ñun moo tax ñu noon bu ñëwee Cheikh Ibrahim bi mu fa jaaree daaw bi mu ñëwee ren itam wax ne dana fi jaaraat nuyuwante ak yéen siyaarante ak yéen lam baxi fële rek moo nekk fii te moom daanaka mooy diw mooy diw sax jërul wax xam nga nit ku nekk rek dafay présenté boppam waaye nag xam la yi dafa nekk loo xam ne waajib la rek sëriñ bi dëkk baa ngi nii njaboot gaa ngi nii benn lañ nit ñu baax fi nekk pàkkab Cheikh Ibrahima la yàlla boole woon nañu lool alhamdulilah ñoo ñëw fi dëkk te nii rek lañ fi dëkkee Cheikh Ibrahima bisimilah seen gan a ngi nii. alhamdulilah rabbil alamin asalaamaaleykum. sëñ bi ñu ngi lay siyaare ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay tatagal ñi di wax bisimilah fii ci suuf si caameen di la dalal jàmm ñaan yàlla sa yoon wii yan nay yoon yi yi ngay yëngat boole yàlla boole ko ci yoon yi nga xam ne moom ngay yëngatu te yàlla nangu ko jëf ji baa yàlla mën na ko yenn ni ko Moustapha waxee di di rakk di suñu lépp wax ci jàttug bul guddal parce que ñoom ñi ngi wax ñun ñoo baa waaye ñoo baax ndax koo xamee teraanga andil andi di ñu ko andil ki am teraanga te teraanga ji dama ko lekk man kenn ma koy bokk yow kooku mooy ki baax ndax yow teraanga la ñeewal Touba wala ñeewal jullit yëpp ñi am ko ñi am la andil ñu ko ñu bokk ko ñoom dëgg-dëgg ñoom ñoo baax kon ñu ngi lay dalal jàmm di la andil nuyoo suñ papa. ndax mooy borom dëkk bi mag la munta génn waaye li ñuy wax nii ci kàddoom lañ koy waxe mi ngi bég lool ci sa yoon wii nga xam ne yoonu xéewal la mi ngi lay ñaanal yàlla it fa nga jëm yaa na nga fa àgg yaa ko xam yaa na nga fa àgg suñu wax ñun dañ koo tënkoon sax jox ko imaam ndax borom xam-xam moo mën a wax lu wax ju fasaa xëy na dañuy ubbi waxtaan bi nuyu la sant la gërëm la di sàkku ci yow nga ñaanal ñu te loolu yaa nga ca nga ñaanal ñu yàlla ba nga xam ne jamono bu ne yàlla may la wét ak kattan boo xam ne boo fi ñëwee fekk wi ñuy xam ànd ak wét ak kattan ak gëm yàlla boo xam dañ la mën ter teral la nga delluwaat ci jàmm kon wax ji ñun dañ koy tënk rek jox ko imaam mu wax ci turu dëkk bi yëpp da waxe borom xam-xam la wa salaamualeykum wa rahmatullah sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la wax dalal ak jàmm ci sa pénc ci sa dëkk di sant yàlla ci sa teewaay fii teewoon nga fi daaw ñu rafetlu ko lool nga ñëwaat ren ñu ngi sant yàlla ci teewaay bi di la ñaanal yàlla tawfiix di ko ñaanal sa waajur wa ak mboolem am toppam ak mboolem jullit ñi di wax tuuti ci tubaafal gi nga jógee taalibe mooy ambassade ci sëriñam waaye ay taalibi lañ yoo xam ne seen benn sëriñ incha allahu du ci seen jëf ak ci seen wax ay jullit lañ la cay tegtal boo demee ci néegam yàlla ba moo gën néeg yee ca dëkk ba yëpp te loolu mooy melow jullit ku fa da nga xam ne loolu xam na ay liggéeykat lañ néegi sàkket ak i pet moo sancoon dëkk ba boo fa demee danga xam ne liggéey moo fa def la fa nekk kon say taalibe lañ yoo xam ne liñ xam ci ñoom mooy jaamukati yàlla lañ ay liggéeykat lañ ay gor lañ ay jullit lañ ndax jullit mooy koo xam ne dafay fonk mbonkam mbokkam jullitam wax nañ ne julli nañ fii ñaar fukki at loola seen ak mbaax la ndax am na feneen foo xam ne su fekkoon gisuñ diine islaam leneen nañu gis du demee noonu waaye ñoom musuñoo xalaat loolu musuñ koo def moo tax ñaari dëkk yi ci suuf ñaari dëkk la waaye benn dëkk la ñu ngi lay seedeel ne ñu baax lañ ñu jullite lañ di la ndokkeel it ci yoon wi ak coono bi yëpp waaye yéen seen liggéey lépp fu ngeen taxaw diine islaam kontaan te lii ci jataay diine li bokk ñu ngi koy sante yàlla bu baax di la wax na nag ñi ngi sàkku ci yow ñaan sàkkoor nañ ko daaw ñi ngi koy sàkkuwaat ren ndax lii wax dëgg yàlla am rëy na daaw bi mu fi ñëw ab shérif nga fi fekk ren bi ngay ñëwat nii sëtëb alaaji Abdoulaye moo ñëw léegi fekk ñu ngi lal basangi ma ne ñun sant nañ yàlla alaaji Abdoulaye ñëw na Serigne Touba ngi ñëw moom léegi la dem rek yow nga ñëw te Baay ci taalifam bu njëkk dafa wax ci Serigne Touba ne wa qaala fi haza al majalil amjadi qadimu taaha malikiyul ahmad boobu mooy asakaay gerte biñ ko ci laaje Serigne Touba la jël def ko référence tontu ci moom ne ku tedd ki ki nekk ci ngiram Malick ki tudd Ahmad lii la ci wax lii la ci wax ci boobu ñaar fukki ak benn la xam di tudd Serigne Touba kon ñun ku xam baay ak Serigne Fallou Serigne Moustapha demeet demeet relation boobu ci la ñu yar ñun liñ gëm képp koo xam ne julli la rek sa mbokk la leen li ci des nag muy tariqa tariqa yëpp ci yàlla la jëm yonantu moo ko joxe kenn ku ne la nga ne nangul nañ la ko ci dëkkun wu rafet woowu ci lañ ànd dëkk ñun ñëpp sëriñ bi ñu ngi sàkku ñaan waxoon naa ko daaw yow li nga yeew mooy ñu laaj la xam-xam jox la hadiya waaye état bii comme suñ loxo kowewut suñ yoon wii waxoon naa la ko daaw ak fépp foo ko mën a jaaree bañ jagaral ñu ko yittewoo nañ ko bi yàlla bii nga dëgmalit ñun ñoo ko moomoon tabax ko mag ñi jiitu tabax ko yal yàlla yërëm leen dem nañ ba dëkk bi xajatuñ ci ñi ngi ko bëgg a yeesalaat gën koo màggal nga ñaanal ci yàlla ndimbalam loolu daal mooy kàddu yi yoon wi lu ñu ci jàppale mu gën a jag ba jaar Tuuba ba dem sax Nduufaan ndax yow haddiyee nga xeew ak laaj masala waaye xam nga état ñañi talil muy ñuul gënuñ ñu cee xeey ñoo ngi ñooma ceem képp wasalaamualeykum wa rahmatullah allahuma salli ala sayyidina wa muhammad nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ mi ngi leen di nuyu maa ngi leen di nuyu bu baax a baax sëriñ bi mi ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax maa ngi tàmbali nuyu bi ci kilifa googu nga xam ne moom la fi tudd te moom lañ fi teewal. moo ngi tàmbali nuyoo bi ci kilifa gu tedd gi nga xam ne moom la fi borom dëkk teewal ci ndigalam mu tàmbali nuyoo bi ci moom. di nuyu borom dëkk bu baax. di nuyu dëkk bu baax. nuyu imaam. di nuyu imaam. di nuyu itam mboolem njaboot gi ma fekk. di nuyu mboolem njaboot gi mu fi fekk. di am bu baax. di am mbégte bu baax. ci teewaay gi ñu fi teewaat. ci teewaay teewaat gi nga xam ne teewaat nañ ko fii ci barab bu tëdd bii. ginnaaw bu fi teewee woon daaw. ginnaaw bi fi teewee woon daaw. te jëlee ci mbégte mu rëy. te jëlee ci mbégte mu rëy. ndax seen ubbeeku. ndax seenug ubbeeku. ak seenug yaatal. ak seenug yaatal. ak seen teraanga. ak seeni teraanga. ma ñëwaat feneen itam. ma ñëwaat feneen itam. fekkaat fi lu mel noonu. fekkaat fi lu mel noonu. am ci mbégte lool. am ci mbégte lool. ba tax na. ba tax na. li ngeen wax ci Touba li ngeen wax ci Touba Fall. digganteem dëkk bii. digganteem ak dëkk bii. alhamdulilah. alhamdulilah sant nañ ci yàlla bu baax. sant nañ ci yàlla bu baax. xam naa bu meloon neneen. xam naa bu meloon neneen. Moustapha mii du wax li mu wax. Cheikh Moustapha mii du wax li mu wax. waaye borom dëkk du ko wax. waaye boroom dëkk du ko wax. waaye kon ko imaam du ko wax. waaye nag ndokk bi nga xamee ne. waaye nag ndokk bi nga xamee ne. ñoom ñëpp lu ñu wax. ñoom ñëpp lu ñu wax. aw yiw rek la. aw yiw rek la. muy woo xam ne. mooy yiw woo xam ne. seq nañu ko. seq nañu ko. seeni kilifa seqoon seenu kilifa seq nañu ko. seen kilifa yee ya ca kawit. seen kilifa yee ca kawit. seqoon nañ ko. seqoon nañ ko. mu Serigne Touba. muy Serigne Touba. ak ma Abdullah. ak ma Abdullah. nii mu ko waxee léegi. nii imaam waxee ko léegi. ba ci Seydina Ibrahim. dikk ba ci Seydi Ibrahim. ak Seyd Khalifa. ak suñu Khalifa. ñoom ñëpp. ñoom ñëpp. xam nañ seen histoire. xam nañ seen histoire. ci seen taxaw. seenu taxaw. ci wetu Serigne Touba. ci wetu Serigne Touba. ak wetu njabootu Serigne Touba. ak wetu njabootu Serigne Touba. nga xam ne naka jekk. nga xam ne naka jekk. dañ daan feggoo rek. dañ daan feggoo rek. def seen bopp benn. def seen bopp benn. di wax ci di waxal lislaam. di waxal lislaam. li iyaai kalimatillah di jottali baatu yàlla sunu borom subhaanahu wa taala te di ko yëkkati te del dellu ko yëkkati ñoom rek ñoom rek ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne bu ñu amee fii jàmm bi ñu amee fii jàmm lislaam am fi jàmm lislaam am fi jàmm te dëgër fi lool te dëgër fi lool danañ leen ci bàyyi xel te sant lañ ci bu baax leen ci bàyyi xel sant leen ci bu baax a baax kon nag roy noonee ñu ànde woon seen àndin wu rafet woowee kon nag ñu àndee woon seen àndin wu rafet woowa nga xam ne Baye Niass na Ibrahim nga xam ne Baye Niass Mawlana Cheikhul Islam Alaaji Ibrahima ñas xam nañ ñu mu jàppe woon Serigne Touba xam nañ ni mu jàppee woon Serigne Touba te junj na ko léegi te imaam mii junj na ko léegi waaye nag waaye nag ñun am nañ ci sunu wàllu bopp am nañ ci sunu wàllu bopp. man ba boo ma am naa ci sama wàllu bu yeboo ma ne sax man mii di alxaaji maam Thierno Ibrahima Mbacke moom seex Cheikh taxa mii am na ci wàllu boppam. ndax tudd nañu relation ak sëñ sëñ Modou Moustapha. ndax tudd nañu relation ak Cheikh Mouhamadou Moustapha. tudd nañu relation ak sëñ Mouhamadou Fadel. ndax tudd nañu relation ak Cheikh Mouhamadou Fadel. waaye defe naa ne relation bi mu amoon ak ku ne xam ne ne relation bi nga xamante ni Cheikh Mahamadul Basir ak El Hadj Ibrahima Niass Baye Niass amoon nañ ko seen diggante ñoom. yaakaar naa bu ëppul booba yooyee itam. yaakaar na ne bu ëppul yooyee itam. tol na ni tol na ni. ndax foofee ca Kaolack. na foofee ca Kaolack. seen dëkkuwaaya. seen dëkkuwaaya. yoon wa nooyoon na lool. yoon wa nooyoon na lool. boo xam ne seen ñaari jéego ya boo xam ne seen ñaari jéego ya seen ñaari ndëggu ya seen ñaari ndëggu ya moo ko nooyaloon moo ko nooyaloon <clears throat> kon nag kon nag nun mënuñoo def lu dul nun mënuñoo def lu dul fu ñu fekk njabootu Cheikh Ibrahima fu ñu fekk njabootu Cheikhul Islam Alhaaji Ibrahima Niass jàpp ko suñu njabootu bopp jàppoo ne ñooñu suñu njabootu bopp la rawatina nag. rawatina nag. li ngeen wax seen liggéey Touba Fall. nii nga xam ne moom la ñu seere ci diggante Touba Fall ak Thiamène Sagne. te loolu moo waral jotaay bii. te loolu moo waral jotaay bii. kon sunu xol sedd na ci bu baax kon sunu xol sedd na bu baax. noo ngi. noo nii. noo ngi feddali. noo ngi feddali. kóllëre gi ñu fi façon daaw. kóllëre gi ñu ci façon daaw. noo ngi koy feddali bu baax. noo ngi koy li bu baax a baax a baax. ñu téye ci di li ñu téye ci sunu xol. te di leen ko ñaan ngeen defee ko noonu yi. te di leen ko ñaan it ngeen defee ko noonu yi. tey ñaan yàlla it. tey ñaan yàlla it. moom mi borom lépp. moom mii boroom lépp. nga xam ne lu mu sàmm mu aaru. te xam ne lu mu sàmm mu aaru. yàlla na ko sàmmal. yàlla nañu ko sunu borom sàmmal. di sant ñëpp. di sant ñëpp. dégg it waxi imaam. dégg waxi imaam. li mu wax ci yoon wi. li mu wax ci yoon wi. wax ko it ci jumaa ji. wax ko it ci jumaa ji. loolu itam dégg nañ ko bu baax. loolu itam dégg nañu ko bu baax. incha allah. incha allah. danañ ci def sunu taxawaay yëpp. danañ ci def sunu taxawaay yëpp. xalifa ba nga xam ne moo nekk fee ca Poroxaan. xalifa bi nga xam ne moo fa nekkal Seexul Xadim nekkal fa Cheikh Mahamadul Basir. nekk ca Poroxaan te sunu doole jëpp moom la. te sunu doole jëpp mooma a. incha allahu incha ci taxaw. dana ci taxaw. taxawaay bi ci war. taxawaay bi ci war. ndax loolu kat. ndax loolu kat. bu jógee fii ci tëli bi. bu jógee fii ci bi. jaar fii dem Touba Fall. jaar fii dem Touba Fall. dem Ndofane. dem Ndofane. yaakaar naa loolu ndamam la. waaw yaakaar na ne loolu ndamam la. ndax yoon fi mu jaar fépp. ndax yoon fi mu jaar fépp. ak njabootam rek la. ak njabootam rek la. xàmmewul leen ak njabootu Touba Fall. leen ak njabootu Touba Fall. ndax lislaam rek. ndax lislaam rek. moo moo ko may cër bi mu am. moo ko may cër bi mu am. koo xam ne lislaam moo la fal nag. koo xam ne lislaam moo la fal. amoo sañ-sañu. amoo sañ-sañu. teqale jullit yi. teqale jullit yi. kon nag kon nag. na ngeen dalal seen xel. na ngeen dalal seenum xel. rafet njort. rafet njort. ci xam ne. ci xam ne. moo yéenay waa Touba moo yéenay waa Touba Fall. waa waaye Touba Fall it ñoo di yéen. kon nañu sant bu baax nag ñu dolli sant yàlla bu baax baax. dana dugg noppam. dana dugg noppam. tawat jooji. tawat jooji. dana dugg noppam. dana dugg noppam. waaye nag duñ yem ci loolu. waaye duñ yem ci loola. danañ sol sunu dàll. danañu sol sunu dàll. ci ndigalam ci ndigalam ak barkeem ak barkeem ñu dox ci sunu kem kàttan di te dox ci itam sunu kemt lay kàttan incha allah incha allahu taala mbàkke yàlla na yàlla may la ci ndam yàlla nañu ci yàlla ci ndam defal nañu tawfeex defal nañu ci tawfeex defal ñu ci tawfeex ba loolu ni ñu ko bëggee ba loolu ni ñu ko bëggee ngeen bëggee ko noonu ngeen bëggee ko noonu yàlla defee ko noonu yàlla defee ko noonu barke sëriñ Touba barkeb sëriñ maa ngi feddali kóllëre gi bu baax maa ngi dellu di feddali kóllëre gi bu baax di leen feeñal sama mbégte itam di leen feeñal it sama am bu baax. ci ci di ñaan itam. di ñaan itam. muy loo xam ni ma ko waxee léegi rek. muy loo xam ne nii ma ko waxee léegi. yàlla téelal ñu ko boppam. yàlla téel ñu ko boppam. bañ yàgg koo defante lool bañ yàgg koo defante lool. ngeen di ko def yéen itam foofee ca Touba. ngeen itam ngeen di ko def foofee nii ñu koy defee ñu defee ko ca Touba. ak Poroxaan ak Poroxaan. ngeen xam ne. ngeen xam ne. seen i bokki taalibe. seen i bokki taalibe. seen i bokki seen i julit. ñoom rek fa nekk. ñoom rek ñoo fa nekk. nii ñu koy defee. nii ñu koy defee. yéen itam. yéen itam maa ngi leen koy ñaan. noo leen koy ñaan saa su ko saa su ko jot mayee su ko jot di maye. moo xam ci xew yi la. moo xam ci xew yi la. waaye moo xam ci lu dul xew la. moo xam it ci lu dul xew. na fekk na muy waxtu woo xam ne rek na fekk muy waxtu woo xam ne rek. yéen seen jot may na leen. yéen seen jot may nañ leen ko. kon nag maa ngi sant bu baax. kon nag mi ngi sant kon sëñ bi invite na leen nag Touba kon. ñeen seeti Cheikh Mouhamadul taxa di sant ak di leen sant bu baax nee mi ngi leen di sant it bu baax. di leen gërëm bu baax di leen gërëm bu baax. ci turam ak turu lislaam ci turam ak ci turu lislaam yëpp. di siyaare sama kilifa ya foofee itam. di siyaare kilifaam yi nga xam ne ñoo nekk foofee Cheikh Ibrahima kon nga jotal leen ko. jërëjëf jërë ngeen jëf sant nañ bu baax a baax a baax a baax a baax. Tamsir di leen seereel cofeel gi Tamsir am ci sëriñ bi ak itamit sëriñ bi couleur gi nga xamante Cheikh Tamsir mi ngi koy dox man su ma koy wax damay wax Cheikh Mamadou Tamsir moom sëñ maam Thierno mu Cheikh Mamadou Taha ndax fan yi ay waaw ndax fan yi ay bokkam dañ koo dalal ci benn waxtaan ñu tànn ban xaritam moom la gën a jaxasool man mii lañ tànn te loolu dara waralu ko lu jëmam ju baax ji la